nopp dalatu ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji il faut nga koy amee aboon na leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm rajim bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi doore kàddu gi di nuyu eh, sang bi di ko ziar di ko màggal bu baax a baax a baax te di ko masaw tamit xam naa ne jamono ji dina xaw a metti ci moom waaye mbégteeg bànneex la kon dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne teew nañu fi di ay kilifa doore ci cheikh Mouhamadul Bachir Abdou Khadr di porte parole euh, xalif bi di nuyu soxna maam xari Mbàkke Murtala di nuyu sëñ Bass Poroxaan di nuyu sëñ Koso ak njabootu sëriñ bi yëpp ñi ak ñi di sant yàlla gannaaw bum ñu mayee ñu fekkee bésub xéewal yi ñuy dem may ñu tamit ñu ànd ci wér gu yaram ak tal ko ba mu oyofal suñu tànk yombalal ñu ko ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñi ma bëggoon a ñu teew fii ci sa kanam Mbàkke di la ziara di wax suñu mbégte gu rëy rëy rëy gu ñu am ci gannaaw bi ñu fi ñuy fekk la fekk njaboot gi yëpp te di jublu ci bés boo xam ne avant mu doon jot laa waxoon premier ministre na xool ak yenn ministres yi nga xamante ne ñoom la seen loxo gën a dugg ci liy euh, defar ci liy yombal ci liy màggal lépp li nga xamante ne ci bés bii lañuy jublu rawatina ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ndax dafa tombé ren màggal ga nekkaat ci nawet ak ministre des transports ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ministre de du commerce ak euh, ministre yëpp nga xamante ne ministre de l'intérieur de l'urbanisme ak ñëpp ñi ma àndal daal ak ministre microfinance yëpp ma gën a sax yaatal délégation bi ba ñi nga xamante ne dañuy ñëwoon dem leen ne nañ fa dellowaat ndax demoon ngeen pour wax li ngeen li ñu leen santoon fan ngeen ci am lan ngeen ci def ak naka ngeen di waajalee déwén incha allah bi ba jafe-jafe yu fi nit mën di dajeel déwén mu doon loo xamante ne lu mu fi dul fekk la wala tamit bu ko fekkee mu oyof ndax nu muy wàññeeku loolu moo waral délégation bi ma àndal nu ma toll rek xeeb naa ko ndax fii mënuñu fi def dara loo xamante ne doy nañu ba mu am satisfaction li ñu ci def rek lu ñu xeeb la di la sant nag ci yóbbante yi may dégg nga koy yóbbante sëñ Mbas te mooy woo di mu ko wax muy sa jàppandal ak say ñaan ci réew mi soxla nañu ko yaakaar nañu ko kon dañuy sant yàlla gannaaw biñ ko amee te mu dakk te mu sax dakk nag ànd ak yéene gu yaata yaata yaata gu sell nga jëmale ko ci ñun jëmale ko ci réew mi kon alhamdulilah rabil alamin ñun tamit dañuy delloo di sukk di ñaan sunu boroom mu may la wér yaram gu dëgër a dëgër a dëgër te may la gudd fan ba fi nga féetee di gunge njaboot gi nga mën ko gunge fu sore sore sore sore sore lépp ànd ak tawfeex ak xéewal bés bii ñuy dem nag bés bu màgg la te lu ci nit di wax rek lu mu bàyyi moo ëpp ndax boroom bés moo toll noonu kon lépp li nga xamante ne waxoon nañu ko ci côté engagement gouvernement lépp luñ ci mën def nañ ko te dañuy compter def ba keroog bés bi romb ñu continuer di def pour bu bés bu ñëwaatee mu gën fekk ne lu bari ànd nag feex fii incha allahu rabbi tànk yi moo nekkoon li nga xamante ne waxoon naa su ma ñëwee naa la ko feddiliwaat ndax yàggu rek jaar naa fi doon la ko wax te nuñ ko waxtaane woon noonu lañ ko jëfe te liñ ci def rek li ci liñ ci am yéene def moo ëpp maa ngi doon waxtaan ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement mu ne ma bu mu woyteeg yow keroog ñëw ziyaare si la wax na la suñu yéene gu yaatu gu ñu am ci régler problème mu ndox définitivement Touba ak régler problème mu assainissement définitivement Touba te sama mandat gii ma yàlla nattoo ci kaw Sénégal loolu mooy sama premier projet boo xamante ne baral naa ko bi fa bu fu mën a yem pour ñu mën ko gaaw a commencé ndax lii doon problème boo xamante daf féete gannaaw te incha allah rabbi yàlla dina ci may ndam ndax ñaan nañ ko ko yaakaar nañ ko ci te ñaan ñu ci ñaan tamit ba barkeel ko yaak am nañu nu yàqin ni dinañ ci am dam bu soobee yàlla mu doon tawféex ak noppalu ci population Touba waaye yeneen population yi nga xamante ne projet bi nar leen traversé muy Thiès muy mbuur ak muy Dakar lépp nag ay xéewal la rek ay xéewal la te wax dëgg yàlla ki nga xamante ne moom moom moom bés bi léppam ay xéewal la léppam teraanga la te léppam njàngal la ak njàngale ak defar ruux ak defar doomu aadama ci loolu la ñuy góorlu ci li ñu yàlla dénk di roy ci moom lu bari te luñ ci roye rek lu ñu lu ñu mën a gën a roye ci ëppati ndax wax dëgg yàlla xéwal kese la lañu ñu ci loo xamante ne royuwaay la kon sant naa yàlla bu baax a baax bi ma teewaloo fii li ñaan ma mayaat ñu ñu teewaat ko ay at yu bari te saa ñu fi ñëwee rek ñu am ñun ci suñu bopp mbégteeg def li nga xamante ne dina yombalal taalibe bu fi ñëw bés bi nga xamante ne kenn bëggu ko wuute ak foo mënte nekk biir réew mi ak bitim réew kon salaamaaleykum wa rahmatullah jàmm xibaar yu sell te bu ànd ak njàngalee mu dal ak jàmm gaawal gaaw bii nga xam ne moo di jàmm ji